réew mi 24 TV. sénégalais yi sant leen ngeen sant yàlla doyut bi ba jëlul réew mi Amadou Ba sant leen yàlla bi mu jëlul réew mi mag mu ñàkk fayda <laughs> ay ñoom Ameth Ndoye moom la ñuy manqal bun ñoom Ameth Ndoye ak booy wax yëpp moom la ñuy manqal bun mais yóbbante galgal ubut làmb nga booy opposé wu da ngay jiital ay góor mais doo jiital ay góor jigéen <laughs> démb bi muy ñëw ci avion bi lay discuter ak Ameth Ndoye par whatsapp Ameth di koy joxe résultat di ko envoyé ay vidéo mooy photo bii ngeen gis nii mooy photo bii ngeen gis di ko wane yii laa fi def mu lay wane Ba ku ñàkk fayda la fan yii wax naa leen nee naa leen du góor booy yëpp moom la ñuy buum parce que xaalis bëri la indi naan Amadou Ba is back is back ñu nangu ndayi passeport bi teg fële auditer compte yi sunu gars yi sa waay warut a génnaat fii di dem fenn parce que xaalis bi mu sàcc ci réew mi ci boppam da koo bëgg a jox gars yi ci boppam ñu yàq réew mi am na lay discuter whatsapp amul ba yaa ñàkk fayda Sénégal lu ngeen sant yàlla doyul. yoo sax muy ñu ko laala waxati mu dal sunu ministre yi waxuma la ak sunu coordonnateurs yi sax coordonnateurs yi waxuma ak militaires yi lu leer rek laa la wax réew mi moom da fi mën a nekk ak ñun si jàmm mënoo ko loolu daal yaa ko teg sa bopp waaw gone yi moom ñoo ngi fi moom soixante-douze yaa ngi fi dégg Euh, ku bëgg a xam la sa maam daal dunde sa jamonoy guerre mondiale ba wala jamonoy cox rek moom moom laalal waa Pastef ñun moom ñoo ngi fi daw ñu dikkuñ toog aar sunu projet dunoo rayante de jële ko fu sori nag mënuñoo nag yor nguur gi toog di leen seetaan non non duñ leen wax lu bon duñ leen def lu bon waaye sunuy ministre ñoo leen moom suñuy député ñoo leen moom réew mi ñoo ko moom dañuy ànd liggéey Sénégal ku ko mënut la bu nu xataalee waxuma la Sénégal waaye faraw Sénégal sax da nga ko xeeb focus rek si combat bi piita dalal xam nan lépp stratégie bi nga teg yëpp xam nan ko wallaay Azim a waxtu lu ngeen waxtaane dana ñëw si ñun mais li leen bëgg a xamal daal mooy jàmm la paix jàmm la paix ok sama gaay piita ñëw na kenn ku ne jëlal sa responsabilité bopp seen réunion yi commencé na kirigu tey war naa def émission ak kële nu ngeeti ku bu